alhamdulilahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin wa sallallahu wa sallama ala alhaadi alamin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma baad mbokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk ci lu nëbbu ak ci lu feeñ ragal yàlla lépp lu ñuy bëgg suñu boroomal ko ak ci ragal yàlla waaye lépp lu ñuy ragal bëgg caa mucc itam suñu boroom mi ngi ko ak ci ak ragal yàlla gannaaw ba ñu xam ne topp yonente bi alayhi salaatu wassalaam benn la ci fondation yi nga xam ne moo lal diine lislaam nusuus yi di alquran ak sunna dikk na bari lool ci di ko digleeg di ko feddileeg di ko leeral waaye loolu teewul am ay kuréel yoo xam ne jàng nañu ci wàcc nañu ci yoon wa yor nañ ci ay déggiin yoo xam ne jubul ba tax nañu tarxiis ci wet googu ba tax na mu nekk mbir moo xam ne aajo woona ñu di ko leeral fu ñu toll ñu xam ne topp yonente bi alayhi salaatu wassalaam mooy roy ko ci wàll pas-pas roy ko ci ay wax ak i jëf ak lu ñuy baax li ñuy ba loolu nag ñu baree baree bari foofu la ñuy jengee dañuy jàpp ne sunna lu ñuy jëf rek la waaye sunna bàyyi ñu bari xamuñu ba tax lu baree baree bari lu ñuy sos ci diine di ko jàppee lu baax bu ñu xamoon ne la doon sunna mooy bàyyi loola bañ a def loola sunna ni mu amee suñuy jëfe noonu la amee sunna si baax bañ a def yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci jëf mooy nu jëf jëf ju nuroo ak jëfam ca anam ga nga xam ne ca la ko jëfe jëf ko it ngir ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nii la ko jëfe wax bu njëkk bi ñu wax ne jëf ju nuroo jëfam mooy jëf ji ngay jëf nga nuroo jëfee la yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ngelaw ndax soo nee da ngay roy yonente bi alayhi salaatu wasalaam te jëf jën na mu ko defe nga defe ko neneen mu wuteeg moom loola boobu baax ak roy du fa nekk la nuróog moom ci melo ak ci aw defeen ci anam gi nga xam ne ci la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam defee mooy jëf ja soo koy jëf la ca yonente bi alayhi salaatu wasalaam jublu woon na ko ca jublu dayo ba mu ko yamale woon itam na nga ko ca yamale na mu ko jàppee bu dee lu war nga jàppe ko lu war bu dee lu ñu sopp nga jàppe ko lu ñu sopp waaye boo jëloonum naa si la tey di ko def ne farata la bu boobaa wuutee nga ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ca jubluwaay ba mu defoon ca jaamu yàlla googa ndax kat royu du mën a nekk ànd ak wuuteeg jubluwaay donte melokaan ba nuroo na wax gi ñu wax ne min ajli annahu faala mooy kiy def jëf ji ne ci jubloo royu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax nit ki su jëfoon loo xam ne melokaan bi mu ko jëfee ak li tax mu jëf ko mooy ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëfewoon waaye moom jubluwu koo roy moom jàppul ci xolam ne mu daf koo roy waaye dafa jàpp ne dañoo daje rek yonente bi def na ko moom mu def ko ñu daje waaye moom jëppul ne dafa roy yonente bi alayhi salatu wasalaam loola bu boobaa du nekk ak topp kon ñett fokk mu daje jëf ji ne nuroo ak bi ko yonente bi alayhi salatu wasalaam defe ñaareel jubluwaay bi ne nuroo la yonente bi alayhi salatu wasalaam jublu woon ca jëf ja na nga ko ca jublu yow itam na nga ci yéenee roy yonente bi alayhi salatu wasalaam jublu ko ci topp yonente ci pas-pas mooy ñu fas pas pas bu mel ne bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam yoroon ci anam ga nga xam ne noonu la ko fase woon la mu ca jàppe woon lu war ba fas ko ñu jàppe ko noonu la mu jàppe loo xam ne bidaa la ba tere ko ko jëf loola itam ñu fas ne bidaa la bañ koo jëf la nga xam ne da koo jàppe ne mooy asaasu diin loola ñu jàppe ko noona waaye fab lu diis nga wayafal ko wala lu woyof nga diisal ko loola bu boobaa wuute nga ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci jubluwaayam ñu fase ko li mu ko fase woon pas-pas nag day làmbu waxe xol te waxe xol mooy dëggal bi muy dëggal li muy fas waaye day làmbu itam jëfi xol jëfi xol mooy sellal li mu fas bëgg li mu fas wakiiru ci suñu borom tabaraka wa ragal ko yaakaar ko ak yeneen yi ci des yépp nga xam ne jëf la yoo xam ne xol moom mooy ki koy jëf topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay wax mooy ñu topp wax ja la muy tegtale waaye tekkiwul rek ngay baamu wax ja fu ñu waxee nga ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na sallu kama ra'aytumuni usalli te fekk na la wax jooja tegtale yow jëfewu ko topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci wax jooju mooy nga julli julli gu nuroo ko julleem li ñu julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy topp ko ci mbooleem lu mu indi ci ay ndigal ak ay tere ci alquran ak sunna ndax moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne jox nañu ma alquran waaye jox nañ may itam lu toll ne moom ci sunna si koy leeral hadis boobu Buxaari yi sowona ko amma juyóog yonente bi alayhi salaatu wasalaam nag mooy safaanu topp ko juyóo googu dana nekk ci pas dana nekk ci wax dana nekk ci jëf dana nekk ci bàyyi bàyyi loo xam ne lu wér la ci sunna nga waroon ko def nga bañ koo def juyóo nga ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye itam fekk loo waroon a bàyyi bàyyi woo ko nga def ko ba tey juyóo nga ci ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam yéeg yonente bi ci pas-pas mooy nit ki fas pas-pas bu wuuteeg li mu fasoon lu mel ne nit ki di daganal loo xam ne ñépp xam nañu ak araamam lu mel ne araam ak sàngara di ko daganal wala muy araamal lépp loo xam ne ñépp lu ñu gàtt-gàtt am loo xam nañ ak daganam nga di ko araamal wala di fent ci diine ji loo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalewu ko lu mel ne feeti biddaa yu bari yi nga xam ne danañu gis muy xew yonente bi alayhi salaatu wasalaam su koo def da ngay boo gisee nit ñu bari di juum ci lu mel noonu danañuy fent loo xam ne danañ xam ne sax li ñu fent du sunna waaye dañuy wax ne nañ ko doxal ci sunna te fekk na xamuñu ne mbir ma su xasee ñàkk a nekk sunna te mooy sababu jëf jënu fay jëf jëf ja doonte sunna la duutu mën a nekk sunna bi daala ndax sababu moo wératul léegi ndax jëf la koy def sunna sabab da caa bokk soo dajee woon tey nit ñi ci ndaje moo xam ne ndajem diine nga ko tuddee moo xam ne amoo ca benn dalil waaye nag ne leen fiy def lépp nag sunna lay doon la ngeen def lépp bidaa lay doon ndax lan la ngeen def sabab bi waral ngeen def ko loola moo juyoo ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nañuy bàyyi xel sabab bu baax a baax a baax ci mooy tax def ji euh, dëpp ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, juyoo ak ci ay wax mooy bàyyee topp la wax jiy tegtale moo xam lu ñuy digle la wala lu ñuy la boo deful wax ja doonte yaa ngay répété wax ja ne gëm nga ko itam waaye la wax teg tegtale bu dee lu ñuy def doo ko def bu dee lu ñuy ba doo ko ba kon juyoo nga ak yonente bi alayhi salatu wasalaam juyoog moom ci jëf mooy nit ki jëf jëf joo xam ne wuute na ak ni ko yonente bi alayhi salatu wasalaam jëfe woon te muy jëf ju war juyoog moom ci bàyyi itam mooy nit ki di def jëf joo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ko bawoon ngir tere gu ñu ko tereg araam gum araam moom mu di ko jëf boobaa kon juuyee nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci bàyyi topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam nag am na wàccuwaay bu mag ci diine bokk na ci liy tegtale wàccuwaay boobu topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam sart la ci ñu nangu sag jaamu yàlla suñu boroom du nangu jëmm jëf lu ne dafa fekk ñu topp ca yonente bi alayhi salaatu wasalaam dëppoo ci ak moom ndax suñu borom ni ñu koy jaamoo du lu ñuy tàndale waaye li mu digle te yónni yonente bi alayhi salaatu salaam mu jotli ko ci la ñuy jaamoo borom bi tabaraka wa taala kenn du ko jaamu ci ay gis-gis kenn du ko jaamu ci ay bànneex yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ku jëf-jëf joo xam ne amoo ci sama ndigal amoo ci tegtal bu koo ci moom nee na jëf joojee dañu koy delloo alxasanul basri rahimahullah ne wax day du mën a wér lu dul dañ ko jëfe jëf itam du mën a wér lu dul na yéene ju sell da koo lal waaye jëf ak wax ak yéene ju ñu mën a wér lu dul dañoo dëppoo ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam te loolu noonu la ko borom risaala ibnu abi zayd alxayrawaani waxee ci muqaddimatu risaala boobu muy jàngalee wàllu pas-pas laa xawlun wala amalun wa niyatun illa bi muwaafaqati sunna wax ak jëf ak yéene du ñu mën a wér lu dul ne dafa dëppoo ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu xam ne topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam cosaan yi nga xam ne moo lal lislaam ndax cosaan bi ko lal yàlla ak wéetal suñu borom tabaraka wa loolu moo tax mooy tax nit ki dëggal shahaadatu an laa ilaha illa allah waaye topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak roy ko moom itam mooy tax nit ki dëggal shahaadatu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lislaamu kenn nit bu mën a wér bu ñu ko nangul wax wala jëf wala pas-pas lu dul ne ñaari cosaan yooyu dañoo am mooy al ixlaas wal ittibaa li ngay jëf lépp nga sellal ko yàlla rek tax nga di ko def doo ko ci bokkaale ak dara waaye defiin wa nga roy ca yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñaari yi moo fii laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci eh, yiy tegtale màggaay topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam sabab la ci tabbi aljanna li koy tegtale mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne sama xeet yépp danañ danañ dugg aljanna lu dul ko bañ ñu ne ko yow mi yàlla yónni ana kan mooy bañ a dugg aljanna mu ne ku ma topp day da nga tabbi aljanna waaye ku ma mooy nag yow yaa bañ a tabbi aljanna hadis boobu Buxaari yi soloon ko bokk na ci liy tegtalee màggaay topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam tegtal la ci bëgg yàlla kuy woote ne bëgg nga yàlla lay firndeel loola mooy ñu gis la ngay topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam suñ borom moo wax ne ne ko waxal nit ñi ne leen bu fekkente ne bëgg gi ngeen bëgg yàlla lu dëggu la nañ la topp yow su ngeen ku toppee yàlla suñu borom tabaraka wa taala bëgg leen jéggal leen seeni bakkaar moo tax ibnu imam ibnu kasir rahimahullah wax ci tafsiram ne aaya bii de day atte ñi nga xam ne dañuy woote bëgg yàlla te nekk ñu ci yoonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam topp ñu sunnaam nee na aaya bii day atte di tegtal de ñooñee kat dëgguwuñu ca la ñuy wax ndax suñu dëgg woon ci la ñuy wax danañu topp yoonu ki nga xam ne moom la yàlla yónni ci mboolem seeni wax ak seeni jëf mbokk yu gëm yàlla yi ñu xam ne nag topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam am na ay mandarga yu koy mandargaal ba ca jiitu mooy ko topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam da ngay fonk am nusuus as-shar'iyya muy texte yi nga xam ne mooy jàngale diine di alquran bu nga wax amatul loo cay teg wala loo cay dellu gannaaw buñ la xasee ne lii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci xadis bu wér moom itam amatoo loo cay wax wala loo cay dellu gannaaw màggal am na suusu sariya nag mooy fonk ko fas ko gëm ne ak njub foofu rek la de ak njub mi ngi ci li yonent bi alayhi salaatu wasalaam andi wallazina amanu wa amilu salihat wa amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa alxaqu min rabbihim nee na ñi gëm li nga wàcce ci muhammad te loolu rek muy dëgg gu bàyyi ko ci borom bi tabaraka wa taala kon njub foofu rek la nekk loolu nag ku ko fas lay teg te la ne fas nga ko da nga koy nangoo jàng boo ko jàngee nga di ko jéem a dégg boo ko déggee nga di ko jéem a settantal boo ko settantalee nga jëfe ko di ca atte woo di ca atte say mbir ndax kat loolu la euh, asalafu saalih yi jiitu woon ñoom looloo doon seenu doxin noonu la ñu màggale woon an nusuusu daw ñu ci masla ibnu sirin ibnu sirin mas na wax ak benn waay jàngal ko benn xadis waaja tontu ko ne ko waaw xadis bi yooyu dëgg la waaye nag diw ak diw ak diw ko gisee mu dal di mer lool ne dama lay wax xadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam yow nga naan ma diw ak diw ak diw nangam la ñu wax yow day duutuma waxateeg yow mukk li fekk bàyyi lool gis nga kon ñoom lu ñu xaritoo xaritoog yow boo amee benn commentaire booy def ci am na suusu charia muy alquran wala sunna loo xam ne ci sa bànneex nga ko teg ñoom bu boobaa dañuy daal di dagg sa diggante ak yow xam ne yoon mi commencé ngaa wàcc yoon bi euh, bokk na ci yi nga xam ne ay mandarga yuy mandargaal la topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam day te tegtale ne kii ragal na ak jeng ak wàcc yoon bi képp ku ragal a jeng ragal a wàcc yoon bi doo bëgg a juyoog yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci dara te loolu leeroon na lool ci doxinu saxaaba yi ridwanullahi alayhim ki nga xam ne moo gën ci xeet bi gannaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf daan wax ne man dey du ma bàyyi dara loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam defoon na ko lu dul na jëf na ko ndax damay ragal su ma bàyyee la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma jeng nee na na su bàyyee dara ci doxinu yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek dafay jeng ndeg moom moomu ak daraja boobu mu toll mooy ragal ak juuyóog yonent bi alayhi salaatu wasalaam tarfata ayin kon rawatina keneen ku man a doon bokk na ci ay mandargaam itam roy ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lu feeñ ak ci lu nëbb te loolu mooy sa lépp nga bàyyee ko topp yonente bi alayhi salaatu doyloo ci li ngay jële ci moom bul jëliwaat feneen leneen bu dee pas-pas bu dee jaamu yàlla bu dee jëflante bu dee jikko bu dee ab yar bu dee tëraliinu njaboot geeg mbooloo ni ñuy dundee bu dee wàllu koom-koom bu dee wàllu doxaliinu réew lépp nga dëppale koog li yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci ay atte tem nekk ci alquran nekk ci sunnaam bu wér bi su ko defee charia yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekk li nga xam ne mooy tiim bëpp ni ko borom bi wax inna jaalnaaka ala shariatin min al amri fattabiha wala tattabih ahwa alladina la yaalamuun innahum la yuwiru anka min allahi shay'a wa inna zalimina baaduhum awliyaau baad wallahu waliyul muttaqin suñu borom ne ko teg naa la ci yoon wu leer nañ topp ko bul déglu keneen bul topp bànneexu keneen kon képp ku koy roy itam sharia ci nga war a teg sa mbir yépp dëppale ko sunu yonente bi alayhi salatu wasalaam bokk na ci mandargay topp yonente bi alayhi salatu wasalaam atte woo sharia di atte say mbir di delsi ci sharia boobu xel lool ci sa mbir yépp topp sharia boobu ndax kat atte woo boobu ak tënk gi nga tënk say mbir ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy mandarga bi nga xam ne mooy taqale diggante jullit bi nga xam ne dafa xel ci topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ki nga xam ne moom bànneexam la topp topp njub gu bàyyi ko ci yàlla daal di réer daal di réeral keneen moo xam ne nag bànnee xam boobee mu topp lu mu ko mën a tudde moo xam am xelam la am xelam rek lay doxee ci diine wala li ñu tuddee zawq la maanaam yëg-yëgam lu lu mu xelam rafetlu rek mu neex ci moom mu dal jël loolu def ko diine wala ab intérêt bu mu ci am la wala ab imaam la bu mu samp boo xam ne nee kii daal mooy ki mat kii lu jóge ci moom wér na lu jóge ci moom wérul te kookee du yonente bi alayhi salaatu wasalaam wala ab parti bu mu bokk la wala ab kuréel boo xam ne mu tëral rek baax na ci moom kookee bu wootee woo topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam lii leeral na topp ko mooy topp gi muy topp leneen lu dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci mandargay topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam gërëm ab atteem ndax abbas radiallahu anhu nee na dégg na yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne mos na neexitu ngëm yàlla day koo xam ne gërëm na yàlla nekk boroomam gërëm na lislaam nekk diineem waaye gërëm na muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ab yonentam hadis boobu muslim solo ab jullit day su gërëmee yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekk ab yonentam duutu geesu leneen lu dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam aw doxiinam duutu ci sukkandiku ci lu dul sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom lay atte woo ci lay atte mbiram yépp itam te atte ba itam daf koy nangu te da koy wammatu te day topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax rida muy ngërëm loo d'accord baat la boo xam ne dafay boole nangu ak def boo ne nangam d'accord naa ci juboo naa ci li muy tekki mooy gërëm nga loola te itam da ngay daal di war a wammatu def loolu ndax kat ridaa d'accord ci dara ba noppi am loo ciy discuté waat bi ca am loo cay seetaat kon li muy tekki ridaal ba amut moo tax borom bi tabaraka wa taala ne wa maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min ci ku gëm ku góor wala ku jigéen su suñu borom tabaraka wa taala tëraloo mbir yonente bi alayhi salatu wasalaam leeral ko muy amati lu muy tànn ci wàllu boppam wala wàllu gisinam mbokki jullit yi ñu xam ne nag topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku ko bëgg def faw am na ay mbir yoo xam ne war nga ko bàyyi xel bu baax a baax ba ca jiitu mooy ñu xam ne diine lislaam ji ci wax yu la tege di alquran ak sunna wax yu boobu dañ koy tuxal tuxal bu wér waaye diine ji teguwul ci xelum kese teguwul ci xalaati kese yoo xam ne moom ngay dégg diineem wala moom ngay doxale say mbir lépp loo xam ne dikk na ci ndigal wala tere ci téereb borom bi tabaraka wa taala wala ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolee dafay war ci ab jullit mu nangu ko te gaaw jëfe ko moo xam lu ñuy jëf la mu jëfe ko wala lu ñuy bàyyi la mu bàyyi ko ñaareel ba dana jaanu ci ab jullit balaa jëf dara mu gëstu ba xam atteb sharia ca loola bala ngaa jëf dara gëstul ba xam lii lan moo cay atteb sharia borom bi nee ne yaa ayuha allazina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla bu leen di jiitu ci kanamu yàlla ak yonentam jiitu ci kanamu yàlla ak yonentam mooy def dara ba pare doog a delsi nag doog di laaj ndax lii lan la ci moo ci atteb sharia atte ba itam soo ko amee na nga ko bu baax ba wér la ne nii la dëppoo ak ni ko yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngale loolu ci sa mbooleem mbiri dund bi la sa mbooleem mbiri dund bépp bul ca jëf dara lu fekk na am nga dalil shar'i boo xam ne bu leer la te soo ko xam amee nag nga appliqué ko mooy nga jëfe ko topp yonente bi alayhi salatu wasalaam sàcc bi mu ngi wax ne képp koo xam ne yaa ngi sàkku ci sharia loo xam ne kenn yoonalu ko nee na yow de juyoo nga ak sharia mu ne na képp koo xam ne sa jëf juyoo na ak sharia sa jëf jooje moom baatil la borom bi tabaraka wa taala du ko fay ndax borom bi li muy fay li mu digg fay mooy lu dëppoo gi li mu wàccee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ñetteel ba ñu xam ne lépp loo xam ne xeetu jaamu yàlla la te yonente bi alayhi salatu wasalaam defu ko wóolu te pourtant ba tax nit ñi wax ne dañ koy def sabab boobu amoon na ci jamonoom loolee def ko biddaa lay doon bàyyi ko sunna la lu mel ne tey li ñuy wax ci màggal juddu yonente bi alayhi salatu wasalaam lañ cee wax ne moo ca nekk lépp ciy xéewal ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci boppam dafa soxla wul woon loolu ak saxaabaam yi nga xam ne dañ doon dund ak moom kon sabab bi ñuy wax ne moo tax ñu di ko def sabab boobu taxawal na ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam te sabab boobu taxul woon yonente bi alayhi wasalaam def ko kon def ko biddaa lay doon waaye bàyyi ko itam nag dëppoog sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam lay doon ndax ni ñu ko waxee sunna def cee am loo xam ne sunna tarkiya la sunna bañ a def bañ a def sunna lay rek yonente bi alayhi salatu wasalaam ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ku jëf-jëf joo xam ne amoo ci sunu ndigal amoo ci tegtal dañ la koy delloo imam malik ne fa ma lam yakun yawma isin diinan fala yakunu yawma diinan nee na lépp loo xam ne jamono boobee fi yonente bi alayhi salatu wasalaam nekkoon bokkul woo ci diine ji kenn xamu ko woon nee na tey mënta nekk diine ndax lépp lu ñuy def ci diine rek dañuy war a imaginer bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam del si woon moo ko war a jiite bu saxaabatul kiram del si woon moonu ci war a jiite su fekkee dañuy def loo xam ne bu saxaaba yi ñëw wala bi dañ ñuy laaj lii lu mu lu leen ko leeral naa leen ñun de lii ci suñu jamono la xew ñun kon li muy tekki mooy loola bokkul ci diine ji ndax diine jëfi suñu borom la jëfi suñu borom nag amul màggat mi ngi mel ne ñun ñii nanu meloon liir ba njëkk a ci kaw ba léegi mooy liir bi judd tey ñëw ñëw jëfi suñu borom day mat bu naan liirub vingtième siècle moom ñeenti bët lay yor wala ñeenti nopp lay yor ñaari nopp yam yoroon ñaari bët yam yoroon ñaari tànk yam yoroon ba léegi moom la yor jëfi suñu borom day mat jant bi fi nekkoon ba léegi amul changement weer yi ba tey amul changement garab yi amul changement jëfi suñu borom la comme nag diine jëfi suñu borom la wax moo ko matal akmaltu naa leen seen diine ni muy matale suñu borom ñu na waaye diine nag moom fu mu toll rek mi ngi yokk di dem rek mi ngi taabi koy dem rek te diine ci yokkee dara am na ko wàññi nii ne la oto bu fees la ba pare rek boo yebee keneen am na ko wàcce waaw biee keneen koo yeb rek am na ko wàcce maanaam biddaa boo yeb rek wàcce nga sunna waaw biddaa bi mujj fees dell ak biddaa sunna nekkatul ci biir ndax bi benn la place bi benn la sunna mënta toog dend ak biddaa fu biddaa duggee rek sunna nga wàcce yéegal biddaa kon nag ñu xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam Euh, diine ji nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala wàcce woon ci moom ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina wa raditu gërëmal naa leen l'islam buy diine ban l'islam mooy l'islam ba yonente bi alayhi salatu wasalam nekkoon ak i saxaabaam parce que booba looy laay l'islam boobee la yàlla gërëm boobee la yàlla gërëm kon ku ca juyoog leneen andi beneen raditu boobu du doo ci bokk dugal ci bopp raditu lakumul a diina nañ bàyyi xel baat boobu bu baax a a baax l'islam ba yàlla xool ba ne gërëm naa ko mooy bi yonente bi alayhi salatu wasalaam yoroon ak i saxaabaam suñu borom xool ko ba ne wa raditu lakumul islaama diina gërëmal naa leen l'islam bii mu ne nga solo mbub mu rafet ñëw taxaw ci kanam mu ne sa mbub mii de d'accord naa ci baax na nga génn ba fee rek daaxaat mbub mi est-ce que mbub ne woon baax na ak ni nga daax benn de nga génn fee naa ci taf am morso naa taf fii bu xonk naa taf fii bu weex ndax patron bi nee na mbub lu baax na moom la waxoon ne baax na ak ñi nga yor léegi bokkut kon bu ñu bëggee yor l'islam bi yonente bi alayhi salatu wasalaam yoroon te mooy bi suñu borom tabaraka wa taala gërëm fokk ñu yemale ko fi nga xam ne fi la ko yonente bi alayhi salatu wasalaam yemalo ñu xam ne mbokk yi itam topp yonente bi alayhi salatu wasalaam bala ñu ko mën a def fokk dañuy respecté juróom benn yàlla gi ñuy def sabab bi sabab bi na dëppoo sunna yonente masalan ñi nga xam ne dañuy wax ne laylatul isra wal mi'raj mi ngi amoon ci ñaar fukki guddi ak juróom-ñaar ci weeru rajab guddi googu ñu digle ci ay jaamu yàlla yu bari yañ cay def jaamu yàlla yooyee tahajjud bañ cay wax tahajjud ak la waaye sabab bañ di ko def moo wérul moo saxul ci sharia ba tax na lañuy ñuy jëf du mën a tudd sunna jiyoog yonente bi alayhi salatu wasalaam lay doon ñaareel ba lu dëppoo ak yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xeetu jaamu wi jaamu yi buñ ko wutalee aw xeet suñu borom dafa digle ne ki leen xam nga liñ mën a bari na waaye mu ne na ngeen rey bahimatul an'am na ngeen rey gëléem wala ngeen rey dag wala ngeen rey xar wala ngeen rey bëy ku ne woon ñee a rëy man ñëw bu boobaa yow la nga def du tabaski ndax juuyoo nga ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ca xeet wañ waxoon ne da nga ko tabaskee ñetteel ba dayoo ba jaamu yàlla gi bu amee ab dayo masalan tey julli juróom yi ku ci yokkoon geneen julli di julli juróom benn julli ci bis bi wala julli gi nga yokk ci bàkkaar loola bu boobaa duutu nekk ak jaamu yàlla ndax dangaa ngaa juyoog yonente bi alayhi salaatu wasalaam ca dayoog jaamu yàlla ga naka noonu ca melowa njàpp tey soo ñëwoon fi njàpp yem nga tàmbalee fa a tàmbalee raxas say tànk tàmbalee foofu njàpp ba ba ngay egg ci galax ndikoog sarax ndikoog juutal njàpp mi la nga def boobaa du njàpp ndax lan da ngaa juyoog yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci melokaan wi nga xam ne moom ma la ko doon defee naka noonu itam juyoog moom ci jamono masalan bis bu dul bis bi nga xam ne ci lañu war a tabaski muy fukki fan ci suuf seen xijja bis ba ko jiitu rek di bisub juróom-ñeenteel ba soo ci tabaski woon sama tabaski du wér ndax da ngaa teg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci jamono naka noonu dëppoo moom ci place bu dee jaamu yàlla bu ñu tënk ci place la mel ni ertikaaf ertikaaf kenn mënu koo def ci fu dul jàkka boo tëj woon sa kër ne damay li ertikaaf moo tax ña koy def ñoom xalwa lañ ko tuddee nee na dañuy dugg xalwa waaye ertikaaf moom mënta nekk ci fu dul jàkka boo tëjul sa néeg doonte da ngay jàng alquran di jaamu yàlla def lépp itam du mën a tudd leer ci kaaf ndax da ngaa duñoo ak yonente bi alayhi salatu wasalaam ca place ba xam ne moom lañ ko war a defee kon yéen mbokk yi yépp ay mbir la yoo xam ne duñoo tuuti nañ koy sàmmanteel di ko laaj wuutee juñoog yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax suñ borom nee ne wa man yushaqiqi rasul min baadi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi gayra sabili lmuminin nuwallihi nee na wa man yushaqiqi rasul ku juuyoo ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam min baadi ma tabayyana lahu lhuda gannaaw bu njub gi sunna leeree nañ wa yattabi gayra sabili lmuminin mu topp weneen yoon wu bokkul ak bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam tracé woon nee na nuwallihi ma tawalla dañ koy bàyyeeg fa mu féetale boppam te bu faatoo wa nuslihi jahannam bu faatoo jahannama la mu jub waliyasu billah wa asalullah alali alqadir an yuwaffiqana li ittibaai sunnati nabihi sallallahu alayhi wa sallam fi muctaqadatina wa aqwalina wa amalina wa an yujannibana zayqa wa zalal wa sallallahu wa sallama ala safwati xalqi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa radiyallahu an xulafaihi arrashidin abi bakrin wa omar wa osman wa ali wa an sairi ashabihi wa man saara ala nahjihim wahtada bihadihim ila yawmi ddin aqimu salaam